doy na ci koo xam ne dafa dafa dafa maam école lay jàngale ci école état lay jàngale nga xam ne si ne xëy na jëndu na jàng na am na xam-xam mais jaarul ci formation daara parce que kooku mën naa nekk murid di diriger daara ci cadre bi nga xam ne moom lañ jàngal alxuraan. xaaral waaleykum xaaral ñu ngi leen di nuyu bu baax gis loolu may laaj mooy diggante ah wax daan ne murid bi ak. jàngalekat bi nañ di waxtaan ma gis na foofu noonu mudir bi bëri dañuy lànk dina ko waxtaan ak ci mudir bi mudir bi day dàq question boobu xam naa comme mel na ne bi ñuy bi sëñ di kii mi ngi présenté ñaari mu fàtti yi fi teew ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax nag di am mbégte ci toog di waxtaan ngeen nekk fi macha allah jërëjëf euh, kon su ko defee euh, ki njëkk laaj dafa laaj. la mooy responsabilité jàngalekat moom dafa jàpp ne indiwuma ko mais xam nga ci biir wax ji plan bi damaa waxoon ne damay wax jàngalekat la mooy ay rôlam su xamee ay rôlam yi mu war a def ma wax la mooy compétence yi mu war a am su ma waxee compétence yi mu war a am ba pare ma wax yan la qualité personnelle mooy ak sifaat ak shaxsiya yi mu war a am moom tamit ak am tamit lu ñu tuddee al euh, al maharat al alaqatiya mu am ay compétence relationnelle yooyu tamit waakaar naa lu ci nee na xam naa dama cee jaar mu gaaw ndax waxtu wee ñu xojoon xam naa bu jëm lu jëm ci wàllu kii bi tamit nu tuddati ndax nit moom bu xamee ay li mu war a def rek xam responsabilité am ba pare tamit faw mu nekk koo xam ne day am xam-xamu wax naa ko tamit xam luwaay yi ba nga xam ne nangam bii bu amee lii moo ko ci war a fekk donc loolu yaakaar naa indi naa ko waaye ku ci gën a bëgg lu leer tamit soo jëlee dalilul mudir wal muallim bu raabitatu madaarisul quraaniya defar yaakaar naa am na ci yu ci gën a gën naa yaatu ci wàllu googu beneen bi tamit ndax kiy jàngalee école ci def franco arabe wala mu jàng français wala arabe rek di jàngale ci école état yi am na droit ubbi daara waaw loolu moom xam nga euh, bu dee loi bi la soo waree ubbi daara bu fekkoon ne école yi la daara nag xaw ma dinañ la ko laaj mais léegi dafa mel ne laajutuñ ko mais école yi dañ lay laaj lu ñu tuddee non inscription dans la fonction publique buy wane na yow nekkoo ci fonction publique da nga koy wane soo ko wanee day wane ne nekkoo fa loolu moom mooy loi bi dañ koy tere moom euh, bu fekkee ci daara nag bu fekkoon amoon na mel na ni mujj yi moom dindi nañ ko ci ndax ñi ma gis ñuy déposé yëpp gisuma ci kayit boobu léegi nag mu des est-ce que nit ki mën na ko ndax man war naa mën a nekk maçon sax ubbi daara waaye su boobaa man damay dem uti boroom xam-xam ma dénk ko ko mais duma ko yor damay dem ko xam daara léegi nag man mën naa nag wax ko li tax ma ubbi li ma ca bëgg mi ngi mel ne tey lu ma xarañ xarañ xarañ xarañ lu ma am am am xaalis xaalis su ma bëggee tabax damay dem uti plan léegi nag maçon bi nag li ma bëgg mën naa ko koy wan moom mu tabax ko mais tey su fekkee ne tey daara tamit. jaaroo ci mais xëy na defi nga ci ay gëstu wala dem nga laaj te lim laaj lépp mën nga ko cee def man jàpp naa ne war nga koo mën waaye li bon daal mooy nga nga nga nekk ci dara ba pare te xamoo ko loolu moom kenn kenn nangu kenn islaam nangu ko kenn nangu ko donc loolu moom yaakaar naa beneen bi eh, am na ku ne yenn mudiir yi ñoom duñ nangu communication loolu xam nga damaa wax ne bokk na ci qualité personnelle yi mooy asifaat a shaxsi yi nga xam ne mudiir bi war na ko am dafa war am capacité à communiquer. ba pare am lu ñuy tuddee capacité d'écoute mën a déglu xam nga déglu mooy yàlla dañoo jox ñaari nopp jox ñu benn gémmiñ dañoo li ñuy déglu na ëpp li ñuy wax su ko defee ñuy déglu ñi ñuy liggéeyee ndoog loolu tamit feedback la gannaaw euh, loolu la tubaab di wax feedback mooy ataxasia euh, rajan mooy rajan yaakaar naa euh, dinañ ko xaw mais mooy feedback daal. arabe loolu la koy wax feedback mooy nit ki ngay liggéeyandoog ngay mën a am retour ci moom ci ni muy gisee ay xalaatam ak li ko jaaxal ak ay jafe-jafeem loolu moom nit ki da ko war a def jàngalekat bi aussi euh, da dafa war a am loolu moom it di am ay retour donc comme communication boobu gis naa ne ci nit mu ñu ngi sàkku déglu gi déglu gi waxtaan bi ci suuf dafa mel ni mi ngi perturbé njàng mi de waaw kon déglu gi communiquer moom ci nit ki la moo tax nit daal pour nga gérer ay nit da wax naa leen da ngeen am ay capacité de communication mën a motiver nit ki tamit mooy tassion ko am capacité tamit d'écoute am capacité tamit di déléguer nit ki mooy lii ëpp na ci man gis naa ne diw mën na ko ma jox ko ko mu di ko def yooyu nag ay règle la yoo xam ne nit ki du xëy benn bis rek mën ko te kenn mënu ko koo jàngal ci benn jotaay da dem di ko jàng di am lu ñuy tuddee euh, plan de développement personnel mooy nga def benn xutaat boo xam ne da nga ciy def man yii mooy samay qualité mais yii mooy samay défaut défaut yooyu nag nga koy jéem a dindi nànk nànk nànk nànk loolu nag soo ko defee loolu ñu tuddee plan de développement personnel léegi nag du càgg ne da ngay ñëw tey rek ne tey ma mën a jiite tey ma mën a jëflante tey ma mën a nàngam da ngay dem xool yooyu yëpp nag am na yoon wooy jaar ba mën koo am donc loolu yaakaar bi tamit am na benn euh, kii bu ma leen jox fiche def ci critère personnel d'un bon candidat yaakaar naa mooy almaayir ak shaxsiya yi donc yooyu bu ngeen ko liiree boo ci am nga nga coché ko wane ne am nga ko boo ci amul boo defee plus mooy am nga ko boo defee mooy amoo ko léegi yi nga amul nag ngay fexe di ci liggéey di ci liggéey ndax kii jël bu dee bu dee bu dee bu dee koo xam ne buy def recrutement dafay bàyyi ay ay xel ay critères critères yi lay bàyyi xel est-ce que am nga ko donc loolu moom gis naa ne. su ngeen ko amee mun na leen dimbale ci lu bëree bëri bëri baax na la sama laaj nga ko ci wolof ci gëtëm la incha allah. waaw jërëjëf euh, yaakaar naa sama sëriñ laajte bi mu laaj laaj bu am solo la euh, waaye xam naa li ma ci leeral mooy dafa jëm dafa gën a dem ci pédagogie. te man dafa mel ne thème bi ñu ma joxoon dafa gën a lëng ci leadership ak management maanaam waaye nag euh, comme am na ay mu fàtte si fi nekk ñoom suñ ñëwee yaakaar naa question boobu euh, dinañ ci gën a mën a tarkiis te dinañ ci gën a mën a waaw ba ma ma ma xëy na nag en tant que ku yor daara mën nga cee xam as tuut waaye nag dañoo am waati xaw sa baariha donné à César ce qui appartient à ah, a âge psychopédagogie dafa am ñu ko miin nga xam ne man mii di wax sama daara damaa wut ñoo xam ne pédagogue spécial la ñoom lépp lu ma jaaxal ci loolu xëy na ñoom ñoo ma cay jàppale bu ko defee nag loolu aussi ñoom buñ ñëwee am nañ chance dinañ cee mën a ndax yéen am ngeen chance ay inspecteur nekk fi donc dinañ leen gën a waxtaanal ci psychopédagogie loolu tamit xale bu ci ne <laughs> ndax ni nit ñi wuutee ñi ngi leen di gérer xale yi tamit noonu la ñuy wuutee ni ngi di jàngale waaw loolu nag mu am communication loolu tamit li nga wax moom lenn rek laa ci wax bokk na ci liy indi jafe-jafe ci diggante ñaar ñu ànd mooy euh, tegelees mënut ak gànt lees man mooy xale bi mënumaa fexe mu mën li ñu ne force da koy mën danga am coow xale bi am coow yow nga am coow ka cay gën a sonn nag mooy xale bi danañ ko violenté danañ ko def nangam danañ ko def nangam te lee du am loolu nag bu xikma amoon ak waxtaan ak xool li mën a nekk ak bañ a bëgg ngóor ba mu ëpp waaye xool li nga bëgg a am loolu aussi ak nite la rek ak loolu tamit loolu ci nit ki lay dépendre daal ñëpp a bëgg ngóor mais li mën a nekk ak li mënta nekk da ngay fexe nag am am am capacité am courage yoo xam ne li mën na nekk li mënta nekk ndax am loo xam ne moom kenn du ko def donc loolu moom laa ci wax beneen bi lu jëm ci wàllu euh, kii critères yi muy maa yi dañoo wax ne nit su fekkee ne da ngay jël nit mu lay liggéeyal. ci euh, ñu ngi ko jëlee ci benn euh, document bu ñuy tuddee développer son leadership ku ñoo John Maxwell moo ko bind mu wax ne bokk na ci booy jël aw nit ñuy liggéey nga xool critères yi nga soxla ci ñoom ndax am na mooy jukko yi daal ak taxawaay yi ñu ne war naa mën a am attitude positive mooy koo xam ne day rafet njort ci nit ñi ci situation yi mu ko xam ne lu mu doon rek da koy gisee gisin bi rafet ba pare mu bañ a doon koo xam ne day négatif daal lu mu doon rek loo ko wax du ko def nekkul koo xam ne vraiment euh, soo soo amoon su chaque jour sax xale yi naqare xel rek la lay wax maanaam toujours moom du law ijaabiyaat yi moom xamu ci daal loolu dafa am nit ñu mel noonu am na am moom soo xëyee saa yu ñu la woowee rek lu lay découragé rek am na du ñu encouragé nit loolu tamit nit da koy moytu maanaam lu mu doon nga gisee ko tamit gis bu dara ñëwee tamit nga xool ne diw de dafa fàtte wala lii nàngam wala nàngam nga am ci gisin bu rafet d'abord daal beneen bi tamit nga am énergie une grande énergie mooy nga am cawaru mën a liggéey lu liggéey bi laaj ci coono nga bañ a nekk koo xam ne da ngay bëgg yomb bu liggéey bi laajee lu métti nga def ko ci parce que tamit résultat pour nga am ko faw faawu a am gis nga lu àdduna di développé développé lu liggéey yu yomb yomb yomb gis nga li tax ñun mënatuñoo avancer ñu bëri ci ñun ñi ngi dépenser énergie de te yëguñ ko mooy suñ poos la ñuy ñeneen di ko jëfandikoo mooy ñeneen ñiy sonn ci seen xel ak ci seen i jukko mooy dafa am beneen interface bu nekk ci ginnaaw mooy ñi jiite léegi àdduna bi te yor wàllu informatique wàllu nouvelle technologie de communication yi soo nanguwul sonn ci lu mu doon it danga uti ñoom di leen jox ñoom ña ngay sonn di xalaat di développer waaw bu ko defee faw nga am énergie muy force boo xam ne da ngay nangoo liggéey ba pare bañ a nekk koo xam ne day gaaw a découragé su nekkee su gisee jafe-jafe rek découragé déedéet jafe-jafe yi mooy indi nit ki di am expérience beneen bi mu il faut mu am mu nekk benn personnalité chaleureuse mu mu nekk koo xam ne vraiment dafay neex a ñeme gis nga nit soo soo neexut a ñeme sa doom rek soo soo tëjoo du la ñeme nit dangay neex a ñeme gis nga ñeme nit ak yàpp ko bokkul yaakaar naa ñun jullit moom neex na ñoo jàngal loolu yonent bi salaay salaam dafa nekkoon koo xam ne ku ku ku ko gis nii rek di ko respecté mais da koy bëgg loolu nag dangay ay jikko moo koy wane loolu nekkul koo gis kii mais da ngay am comportement boo xam ne bu ubbeeku lay doon nit ñi ñeme la te duñu la ñaaj duñ la yem beneen bi aussi nga nekk koo xam ne dafay am intégrité an nazaha mooy am euh, koo xam ne da ngay ku la gis da ngay doon ko am confiance maanaam dañ lay wóolu nga doon ko wóorit sa jëf ak sa wax nuroo mais soo ñëwee ci réunion bi la ngay wax ak ak soo demee la ngay def say jëf ak say wax li sëñ Abdoulaye waxoon ne nit nit boo xoolee waxi démbam ak jëfi tayam mënoo leen a wuutale nee na nit a ngoo foofu muy muy muy muy muy tegtal an naasu ak xaw bi ci lu leen wuutale mu ne naasu moom mooy ku boppam jëm kanam rek euh, ku boppam jëm kaw tànkam jëm suuf naasu la xaw ma nag ay mandargaa koy def ci nit mooy koo xam ne waxi démbam ak jëfi tayam soo leen boolee mënoo leen a tàqale kooku booy jàpp jàppal kooku comme booy jël nit amit soo nga jël ku intégré ku responsable koo xam ne dafay xam mas'uliyaam xam li mu war ak li ko warul am na yoo xam ne bu ko nit di def rek day xam ne kii responsable kooku yàgg-yàgg daf lay indil jafe-jafe ndax nit ki xamul fi responsabilité am lan mooy responsabilité am ndax bu dee mudir bi wala jàngalekat bi wala koo mën di jël wala sax ba ci muraaxib bi foo mu xam kii dénkuñ ko ay xar mais la lañ ko dénk ay nit te xale yi li ñuy bëri bëri bari kenn ku ci ne doomam rek moo ko ñor ci daara ji gis nga parent yi naa leen wax dañoo ind dañoo dañoo ingrat li ma koy faral di wax ku ci ne sa doom kese kese moo la ñor ci daara ji daara ji na nga am 99 pour cent mu des kenn moom daan daara ji xamul dara te wax na dëgg moom xamoo daara ci moom parce que defaloo ko résultat léegi nag <laughs> loolu soo ko xamee faaw nga xam sa responsabilité fu mu tàmbalee fu mu yor beneen bi tamit il nga am une excellente image de soi maanaam nga am image bu baax ci sa jëm image bu baax ci sa jëmm mooy nga bañ a nekk ku complexe complexe nag ñaar la mooy jàpp na yow tekkiwoo dara wala ñëpp la gën wala amoo qualité wala amoo benn kab loolu kenn du ko def nit doo yëkkati ko mais tamit xëy na nga nekk ku ku ku ku kii rek euh, waaye tamit doo jàpp ne yow yow yaa ëpp ñëpp xam-xam yaa gën ñëpp kenn waru laa wax dara yaa toll fii loolu tamit image bu baax wala nga nekk ku loo xam dafa am complexe de culpabilité mooy lu ma def rek. am danaan lu ma def rek nangam nga xam dañuy ragal a def daal. d'accord waaw su ma waxee nangam wala su ma defee nàngam nit ki da déedéet loolu complexe de culpabilité la mooy yow da ngay da nekk coupable ci sa bopp te nit ñi teguñ la mooy da ngay rek. ñëw da ngay da wax lii est-ce que nangam est-ce que nangam il nga am benn image ci sa bopp beneen bi tamit il faut nga am nga nekk koo xam ne da ngay am volonté jàng waaw mooy dangay dangay da ngay xemmem jàng foo toll di dolleeku au fur mesure liggéey bi di yokk. ngay bëgg di xam ndax ku taxaw ñu raw la kon il ngay xam beneen bi tamit nga am capacité de leadership waaw alxudra alal xiyaada mooy nga mën a jële aw nit fii yóbbu leen gis nga leadership du dara lu dul influencé mooy fexe ba nit mën lu mënutoon moo xam ay xale la moo xam ay kii la nga jëlee ko A yóbbu ko B te nga def ko ñu bari nag doon koo xam ne foo nekk sa influence day am njëriñ dañ lay soxla mais koo xam ne bu bu bu bu li may wax am na ñoo xam ne ñu ne la woon maa ngi bàyyi nga fay leen ak nit ki naa la bu jàllee damay damay non mooy koo xam ne gis nga damay wax ne ñun ñëpp war a ñoo moytu di def li ñëpp mën rek. Hmm. gis nga jàngalekat bu jàmbaar. di waaw mooy loo xam ne boo génnee ci marché bi rek am ko dangay ngay fexe di fexe di jàmbaar ba xam nga koo xam ne li mu mën rek lay def. Hmm. liggéeykat boo xam ne man su ma ko jëlee wala directeur boo xam ne lu mu mën rek lay def. Hmm. moom du ma jéem a dolli man tamit du ma loolu loolu amul solo. islam sax daa bëgg njàmbaar ñun ñii saxaaba yi lu tax ñu ñuy jàngal siira pour pour pour buux ñu ci ñu bëgg ak njàmbaar mooy diw def na nangam ñun ñëpp lu tax bu ñu waxee sëy naa Aliou sëy naa diw sëy naa diw nga bëgg mais ñun aussi faaw tamit ci njàmbaar rek la ñuy mën a la mën a jàppee tamit waaw beneen bi mooy nga nekk koo xam ne da am capacité di suivre nit ki xam nga suivre mooy nga ñëw ci bërëb. ñu ne diw moo jiite diw moo jiite diw moo jiite loolu moom nitu daara kenn du ko ko jàngal ndax euh, moom lay wax ne volonté de suivre de participer à tout travail d'équipe ndax équipe mbooloo dafa am ay règles dafa am ay réalité il faut nga am koo xam ne il faut nga nekk koo xam ne da ngay mën a dundandoog aw nit wax naa ko ci njëlbeen ne nit animal social la yaakaar naa Rousseau moo ko nit dafay doon koo xam ne mënut a dund moom rek faw aw nit lay dundandoo moo tax nii ngeen bokkee ci ay kuréel di dollante dafa am solo ndax ku ñuy wax Philippe Mérieux dafa wax ne équipe boo gis ñett ñii la concepteur mooy koo xam ne mooy xalaat su xalaatee am ñoo xam ñooy réaliser ñoom liñ xalaat ñoo koy jëfe xam ne dañuy jàmbaar loo xalaat rek mën nañ la koy am ñoo xam ne moom ay chômeur mooy lu gërib bi bëri bëri ñoom duñ def dara am ñoo xam ne ay gêneur lañ mooy non seulement duñ leen ci def mais dañuy dañuy gàllankoor nit ñi sax ñuy def loolu nag équipe da nga koy mën a identifier ba xam loolu da man mën bañ a bokk ci ñooñu soo bokk ci concepteurs yi nga bokk ci réalisateurs yi beneen bi tamit nga nekk koo xam ne da ngay am da ngay day day ki ngay jël na am koo xam ne du am ay problème personnel yu bëri mooy foo ko fekk day am problème mu famille parce que jubawut ak njabootam wala dafay dugg ci lu munut wala foo ko fekk daal kooku moom du la ba lay jàngaleel te kooku soo ko amee bis bu seet ay problème am nga koy moom yaa ngi ko woo pour mu régler la say problème mais yaa mujj nag di ko régler problème te saa su ne mu ñëw ne la fu mu toll nga bàyyiwaat li nga nekk nekkaat ci lii moom la nga ko jox doxut yow la nga waroon doxal doxutu comme nit ki aussi di yamale ay bëgg-bëggam ba li muy mën mu du ko li muy li muy mën mu du ko def dana tax du am ay jafe-jafe wax bokkut ak nag nit di liggéey ak yow ba pare nag am ay problème so loolu ñëpp lay dal loolu nag yow yaay xool noo koy woowee noo koy ji dellusee noo koy indee noo koy jàppale loolu ñëpp lay dal amul kuy liggéey te amoo problème loo tax bokk na ci capacité mudir ngay mën a xool say comportement liggéeykat kii de damaa gis mu sawaroon kii de dama daan nuyu kii fan yi damaa gis mu frustré kii damaa gis léegi nàngam nga xool lu ko waral nga woo ko ngeen waxtaan nga xool noo ko ciy jàppale bokk nañu aussi nga nekk koo xam ne da ngay am bon bu bii moom xëy na bu doon man le sens de l'humour yaakaar naa euh, mooy mooy mooy koo xam ne xëy na day bëgg ku bëgg ree bëgg kii yooyu man su ma ko doon jël ci critère du ma ko jël waaw maanaam ku bëgg foo bëgg ree bëgg dund kii loolu moom euh, mooy xam nga ñoom am na ñu ñuy tuddee ay humoriste ci télé yi nga xam ne ñoom loolu rek la ñuy liggéey di wax ñuy reetaan loolu bon mun man su ma doon tànn xëy na boobu duma ko duma ko tànn euh, mais am na ñu ko soxla ndax am na am dañ koo boole ci ay critères boo melul noonu sax boo timitee wala nga nekk koo xam ne kii duñ la jël waaw beneen bi na nga nekk koo xam ne da am ressort ressort xam nga dañoo ressort ni mooy lii lii dugg di génn nii ci dara ci mat laa yeeg moom la ressort mais mooy ressort ah loo am day dugg di génn léegi nag loolu suñ ko suñ ko suñ ko kiyee ci nit mooy nit koo xam ne dafay su problème yi ñëwee day mën a soppaliku ci problème yi te du soppeeku moom maanaam dafay nekkoon day mën a adopté wu mais koo xam ne bu bu li mu koy defloo boo ko changé tuuti rek mu am jafe loolu tamit am na mu nekk koo xam ne aussi dafay def ay preuve mooy nga gis koo xam ne moo tax léeg lee ñu ne la yow mas ngaa jàngale nga ne waaw ñaat nit nga mas a mokkalal mu ne mokkalaal naa ñaar wala ñett kooku def na ñaari résultat kooku da koy soxla mooy mas naa def ay preuve wala man mas naa yor moo tax ci CV yi ñuy xool yow fan nga jaar ñaata expérience nga am boo xoolee appel d'offre yii sax ci yenn place yi dañu xool say expérience ñaata expérience nga mës a réussir moo tax foo mën di jaar rek jëm faa jàngee dara jàngee fa dara ba pare def fa résultat boo xam ne te del nangu del del jël résultat yi ñu la koy attesté bu fekkee ne daara ju ñuy nattee la résultat yi ngay am ci pourcentage yi nañ koy photocopier du la ko jox. moo tax mudir yi dañoo war di am ay bitaaxa yoo xam ne ay fiches yoo xam ne dañ ciy def seen résultat yi jàngalekat mais résultat yoo xam ne baaxul xam nga doo ko mën a wane. comme kooku dana mais yooyu soo ko kii day baax na man lee mas naa jël benn waa kii mu ñëw fa indil ma bi leen daan natt résultat yi mu daan am mu rafet baax xam nga loolu day am solo loolu nag baax na loolu tekkiwul ne moom bu ñëwee fii mën ko fi ndax li ñu wax naa li sëñ Tuubaa doon jébbal wax la boo waxee ñu dégg ko waaye boo jëfee ñu jàpp ko donc affaire bi aussi boo waxee boo ñëwee aussi dañuy xool pratique bi beneen bi tamit il foo nga nekk koo xam ne da am désir waxoon nañ ko sànq mooy bëgg li ngay def bëgg ko lool beneen bi nga am discipline personnelle mooy comme lii ma wax gis naa ne lii moom toujours moo may indil ay jafe-jafe du du du du du du jikko bu bu baax du attitude bu baax daal mooy damaa tayal wala sérieux ma wala damay tardé wala nangam wala damaa dama damaa naqari deret wala damaa damaa wala man nekkuma kuy def yooyu yëpp nga xool ko ut ci nag benn. Euh, benn benn plan ba pare lu mu laaj nga def ko ci su dee loo war a jàngi nga dem jàng bu dee coono boo war a def nga def ko loolu yëpp nga def ko loolu daf lay dimbale beneen bi demee nga am créativité doon koo xam ne dangay mën a créer waaw mais nekk fenn li may faral di wax yow mbir mi fi ñu la ko joxee woon yow jé defoo ci virgule waaw maanaam woo ci dara daal ni la ko joxee rek nga ko nga ko nga ko nga ko bàyyiwaatee boo gisee suñu njiit yi toujours dañuy bëgg di wane bilan mooy fii laa jëlee mbir mi fii laa ko yóbbu di indi ay chiffres di wax di wax parce que loolu tamit dafa am solo beneen bi mooy nga am flexibilité daanaka moo ressort boobu mooy am mooy koo xam ne nga bañ a ragal changement maam fi ma nekkoon rek lii daal bu ñu ko bëggee changer àdduna tukki déedéet changement il faut mu am changement ndax changement moom ñett yi la dañoo nekk ci jamono àdduna boo xam ne changement mooy ki xam ne changement ki nanguwul ne changement am na kooku fu mu jaar am problème ci dundam. ki xam ne nangu na changement am na mais man jéem ci dara damay toog li ma mu di xoole kooku changement bi da koy da koy alal mais ki nga xam ne daf ne changement am na mais muy xool ay pexe yu muy def ba sañ sëñ may Mbaye sii sa wax nangu nañ ko ñu dolli mais nanguñ ko ñu soppi xëy na doo soppeeku mais di nga di nga mën a adopté changement yi ba xool la ca baax ak la ca jaadu nga jël ko ba pare nag soppeeku waat yow tamit ndax bëri na changement yu ñuy jël de dafay fekk mu neex suñu bakkan rek. bu ko defee beneen bi ki nga xam ne moom xam na ne changement dina ami mu di ko anticiper mooy ne américains yi def léeg-léeg mooy xam ne nangam mu ngi ñëw nga anticiper ko ba bu ñëwee nga préparer say vaccin ak say problème ak say nangam bu ñëwee yow nga profité ca ñooña féetewaat kaw loolu tamit moom loolu day am nga nangu changement beneen tamit voir le tableau d'ensemble mooy mbir mi nga bañ koo xoolee ci benn côté wax naa leen ko sànq ci John Maxwell ak waa ja mu gisoon nii mu noppi doom ya ba mu ko laajee mu wax ko dafa gisaat leneen loo xam ne moom xamu ko woon kon mbir mi tamit nga nekk koo xam ne doo xool sa intérêt personnel rek mais da ngay xool intérêt mbooloo mi lii day moo ma enragé man su ma doon def mais lii mooy li baax nag nga xam ko beneen bi tamit nga am intuition intuition nag mooy nga nekk koo xam ne euh, da ngay mën a xam signes yi nangam gii day lii lay waral tey am na bu xeeñee rek da ngay xam ne safara moo war a am am na nangam su kiyee nga xam ne lii su amee lii mooy am lii su amee lii mooy am am ñoo xam ne nag dara day ñëw ba dal seen kaw ñuy door a xam ne dara am na léeg-léeg sax duñ ko dana dal seen kaw ba pare sax duñ ko nangu kon yooyu yëpp tamit yaakaar naa xam naa xaw naa dëng ci olof bi waaye su ko defee suñu paree yéen li ci des di ngeen ko mën a jubbanti kon euh, ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax jërëjëf. yëngatu ci jamono bii may wax ak ci invité nga xam ne commission bi ñu dénk wàllu saxaafa moom moo ko jiite te ñoom ñu ngi aju ci daayira boobu ñu tuddee Rawdu Raaxin kon daal bi ku lixtisaar kii mooy Cheikh Ahmed Mbacké Niang bi nga xam ne moom la ñu war a jàkkaarloo mu defal ñu comme li sëñ Xaadim def yaakaar naa temps bi mu am yëpp une la mooy xool lum ñuy lum ñuy ilqaal mawdon bi soo defee mayuñ ci quelques minutes ñu defee laaj gi tontu ak taxale yi ci aju. di leen ndokkeel. ci xew-xewu diine bi ñuy door a génn di leen ci baalu àq di ñaan ngeen baal ñu. waaw xam naa tomb bi li ñu sant ñu waxtaan ci mi ngi jëm ci andu euh, mu daanaka mooy xam nit rek ci gàttal. Mm-hmm. ko bëggoon a euh, tënk euh, am na ci yoo xam ne sax seen xaadim xaw na laal yu bari ndax xam nga xam-xam yi léegi dañuy duggante. Mm-hmm. waaw am na ci yoo xam ne yu muy laal. dafay duggaale fii du ñàkk mën malade yoo xam ne dana duggaale feneen moo tax xam-xam yi moo bindoo noonu euh, am na ci yoo xam ne dañoo juddoo ci yeneen bi ñuy bëgg a waxtaane dafa juddoo ci falsafa mooy philosophie mooy xam-xamu xel moo nekkoon ci cosaan bii da cay juddoo kon booba mooy ndey ja euh, moo tax boo jëloon yeneen tamit am na ci yu bari foo xam dañuy daje ndax dañoo bokkoo askan waaye li am solo li mat mooy wax ju gudd gàtt mooy nit a fi nekk nit yàlla dafa dafa sàkk nit wàcce ko sant ko ay liggéey nit moo nekk ci kaw suuf mboolem li ñuy wax lépp nit a koy sottal nit a koy jariñoo hmm. loolu bu ñu xasee ba xam xam ne li am solo mooy faw nit ki mënta ñàkk kon hmm. euh, ñu jëflanteeg moom seen xadim tudd na ko euh, nit ta beru di dund ay aajoom di faju loolu yàlla defalu ko kenn hmm. faw ci biiri nit rek la ñuy nekk ci la suñuy aajo di fajoo waaye ci foofu it la amee ay jafe-jafe hmm. kon ci biir nit rek lañuy ñuy mën a nekk hmm. mboolem lu yàlla sàkk tamit ci suuf ci kaw suuf ak ci biiram ak làpp daxañ ko fi ci ay xéewal lépp nit a tax waaw nit a tax waaye nag defalu ko ba mu njëkk mu tegal ko nga xam ne jëfandikoo rek a ci des déedéet def na ko mu ngi fi waaye na nga cay egge moom sa coonee bopp la waaw na nga ciy egg sa coonee bopp moo tax pétrole bi ci biir suuf seeg gaz beeg nangam ak nangam ak or ak mboolem xéewal yooyu yëpp yàlla difu ko ba mu sotti ba jëfandikoo des mu jox ko nit déedéet waaye da ko daf daf na ko dëxëñ naa looy soxla loolu lépp dëxëñ naa ko ci biir ndox meek suuf seeg nangam mag yu mel noonu pour nga egg ca nag sa coonee bopp ak sa sa sa yittey bopp moo la cay eggale mm. jën yaa ngi ci biir ndox ma waaye génneelu ko génneeluñu ko kon pour ñu jot ci jën ya ba keroog muy tege ci ndab li hmm. faale ñi mën koo jëfandikoo hmm. des na ay jéego noonu loolu la lépp mel ci àdduna hmm. kon nit mooy sottal mbir waaye nit a koy jariñoo kuy rëb jën di ko nappi defoo ko ngir jox ko sam xar kon sa jëmma bopp kuy tabax ay air plus defoo ko ngir sa jur sa jëmmi bopp kuy def ay autoroute nit kon nitay def nitay jariñu loolu buñ ko jàppee mu am solo loolu loolu nag alxuraan wax lii may wax alxuraan bi ñu ne ko alam taraw anna allaha saxara fi samawati wa maa fi ard wa asbaa aleykum am na yu fés am na yu nëbbu waaye léegi nag li mu li nit mënta defal boppam la ko defal moo da ko jox jumtukaayu liggéey bi sëñ xaadim doon na ko junj léegi am na ci yoo xam ne sëñ euh, euh, mudir bi ki jiite daara ji moom ko bu indee ay jumtukaay sàmm jumtukaay ak ñoŋal ko nag ki ñu ko jox la war. d'accord yàlla nag daf ñoo jox ay jumtukaay jumtukaay boo xamante ni moom lu ne lu ne mënees na ko cee man hmm. boo gisee nit yilif àddina yilifu ko ci am kàttan ndax bu doon doole dong gaynde yilif àddina wala ñay hmm, hmm. waaye kon nit bu yilifee àdduna leneen la ko yilife waaye yilifewu ko doole hmm. kon ñu xam ne àdduna bi doole yoru ko wala doole da ko yor jeneen doole la waaye du bokkut ak doole ji ñu xam hmm. kon mbir mi foofu la nekk loolu nag jumtukaay boobu di xel nga xam ne mooy jumtukaayu xam-xam hmm. ca moo lalu ci lépp moo wutale nit ak mala waaye bokkale nañ lu bari waaye la leen wutale dëgg-dëgg mooy mooy loolu kon Euh, loolu lu xam ni kon xéewal yooyu ñu yàlla defal pour ñu egg ca faaw xam-xam am ca faaw jikko ju baax am ca kon nit dafa war a am xam-xam ba noppi rafet jikko ñaar yooyu lañuy ñuy ci moom bu amul euh, daanaka mën nañoo wax ni du sottal dara du sottal dara waaw euh, suuf bu àtte ay étage fukki étage ak juróom wala jëm kaw yu kenn xamul fu mu toll xam-xam moo fa jaar ba xam ni suuf si àttan na nangam ak àttanu ko bu bato mënee dox ci ndox ca du suux xam-xam a fa jaar bu nit mënee feey nii ci ndox ca labut xam fa jaar kon xam-xam mooy mooy mooy mooy laytaay gi munta ñàkk xam-xam nag ci jullit cosaan la mooy alquranul karim alquranul karim ma farat na fi kitaab bi mi chey kon alquran mooy ndeyi xam-xam waaye nag dafa doon matière brute bi maanaam boo ko dee détaillé am na ci yoo xam ne boo ñëwee bëgg gis tur ci biir alxuraan doo ko ca fekk. waaye lépp yàlla dax daxañ na ko ci biir alxuraan ci anam kon lépp a ngi ci biir léegi nag loolu xalaat lay laaj ak gëstu ak kii réew yi foofu leen rawante nit kooku nag nga xam ni ñuy wax ni lépp lu sotti moo ko sottal waaye lépp luy sotti sotti njariñul boppam moo tax nit kooku. yàlla da ko def mu doon nit koo xamante ni moom ci boppam sax xamut boppam yàlla rek moo ko xam hmm. ndax xereñteef gu yàlla am ci wàll sàkk gi mu ko sàkk ak bind gi mu ko bind hmm. mu am ay soxla soxla yoo xam ne tamit eh, eh, yàlla da ko mooñaale soxla yi day ànd ak moom ba faaw hmm. yoo xamante ni doo ko mën a régler benn yoon rek mu lijjante ko ay soxla yi xiif ak mar ak yeneen ak yeneen bëgg ak ay yu mel noonu yooyu da koo dëxëñaale hmm. yoo xamante ni ca ni mu ko defee yàlla da ca boole xereñteef xam ngeen ni nit du xiif benn yoon lekk suur benn yoon rek mu jeex ci dundam déedéet xiif day dem ak dikk da ngay xiif lekk demaat tuuti xiifaat lekkaat nang loolooy tax àdduna dund hmm. ndax loolu mooy tax ngay bàyyi xel boo xiifee tey ba xam li ci xiif nga fexe ba lekk da nga xiif ba balaa muy ñëwaat nga waajal ko pour mën a ki loolooy tax nit di liggéey nangoo sonn pour mën a am teraanga kon da ko da ko mooñaale xiif mooñaale ko mar mooñaale ko rafle mooñaale ko yu bare bare yoo xamante ni nit amu ca sañ-sañ faaw rek da koy subir maanaam day day da ko jéem a lijjanti aajo yooyu nag mooy tax nit dëkk ci kër kër bu yàlla dee wax ni bind naa doomu aadama ci coona mooy waxu ko nii rek ngir wax mm. mais da ko laxas da koo laxas ci anam boo xamante ni fawu nit ki sonn fawu nit ki sonn léegi nag bu sonnee ci anam bi ko yàlla dig eh, digale mu am ci tiyaaba am ci teraanga waaye bu topp ndigale yàlla dana am coona mën naa am mu am teraanga ci àdduna waaye alaaxira moom du fa am teraanga ndax teraangay alaaxira yi topp yàllaa koy maye. kon nit noonu la bindoo dafa am ay ay aajo yu jëm ci yaramam jëm ci xelam jëm ci ay yëg-yëgam yooyu yu ama am solo la yoo xamante ni moo tax nit ki mën nañoo wax ni benn bloc la nit du yaram rek nit du xel rek nit du ruux rek waaye lépp ngay boole door a am nit loolu la ñuy tudde waxdatul insaan yooyu nag benn du ci beru di def liggéeyam waaye eh, dañuy dañuy dimbalante ci seen biir dañuy dimbalante ci seen biir boo ci laal mu jeexital ca ya ca des nit bu xiifee dana jeexital ci cër yi dana jeexital ci xelam hmm. ak dalam ak nangam ak yooyu mooy tax nit bu xiifee xiif bu tax daanaka day tàggoog sagoom léeg-léeg hmm. xiif bi mën naa egg foo xam day xëm ndax ndax ndax kii moo tax lu ko ci daal day day jeexital ca fa ca des ci misaal nit ki bu fekkee ne bég na laataa muy bég bu bëggee day wane day def luy wane ne bég na mu ree bu ree day mel ne eh, ree gi ay cër a koy def ndax lu ñuy mën a gis la waaye laataa ree di am am na yëg-yëg bu mu am yëg-yëg booba xel mi liggéey ca daal di ko jox xibaar ne ko lii kat lu baax la lii lu am solo la mu bëgg ca ree hmm. kon nga gis ne xol bi liggéey na ci xel mi liggéey ci cër yi door cee liggéey bu meree bay bay fët-fëti di def ay dégâts ñu cër yëpp ci liggéey cër yi mujj cër yi moo ciy mujj feeñ di yàq di nangam di dóor di nang ak yu mel noonu mooy ni xol bi liggéey na ci yëg-yëg jox ko xel mi xel mi liggéey ni ko kii dañ lay yàpp wala dañ lay doyadal wala dañ lay nangam ak yu mel noonu waaye li am solo mooy saa boo gisee ci mandarga yi màndarga yi ci loolu xale yi koy man du bari lool mandarga nii lam ñu set na xel mi ñu muy xalaatee nosu na nosu doonu ni wax mu dégg nii rek waaye nosu na ak yu mel noonu ba nga xam ne rafet dal na ci xel kay na mën nga koo kii mais loolu boo ko xoolee lu ci bari bu bari ay benn benn lay doon mais teg takk yi mooy ni xale bu màgg màgg ku normal ci amul benn sikk bu eggee ay juróom benn at ak genn wala jàpp juróom-ñaar dana mën a tàmbalee dal loolu mooy takk bi waaw dana mën a tàmbalee xàmmee su ko defee ñu ñu ñu dalal xale bi nuñ koy corriger nuñ koy jubbantee mm-hmm. gis ngeen ñun ñur dañuy jaawale diggante yar ak mettital ñaar yu bokkut la mettital dafa am yar am yar dafay ànd ak leeral yar dafay ànd ak leeral di ginde euh, xale bi même boo ko dee neexal ci mbir na xam sababu neexal bi même boo ko dee teg daan na xam sababu teg daan bi ndax leeraayu mbir mi ci boppam xam nga lënt lënt lënt lëntu teg nit ki daan wala nga neexal ko xamut sababu neexal bi wala nga teg ko daan ci xamut sabab bi ñàkk xam sabab bi dafay joxe safaanu li nga bëggoon mooy li am solo mooy na xam sabab bi moo tax néewuñ xale kenn du ko teg daan dañ ne ëppal ci wala nga weesu ci fi nga ci waroon a taxaw wala ci nàngam ba diggante lam def ak daan bi nga ko teg méngoowul yooyu yëpp ci ñàkk maandu la waaw dafa am ay jëf yoo xam ne aajo woowul dóor am yoo xam ne même bu ko aajo wooye ëppal ci dóor yi ba weesu fan ca waroon a taxaw tamit day yàq mooy ne kon maandu ci lépp looy def boo demee ba tànn ni kii dama koy mettital mettital bi na méngoog jëf ji su ko defee tamit na xam sabab bi bu ko xamee da koy nangu buy jàllale da koy bàyyi bu ëllëgee bu koy nettali daan yi ban ba ma nekkee ci daara bi na maa def naa nga waaye xaw nañ ma ca yóbbu àllaaxira mooy da koy nettali noonu rek mu daal jeex mais gis nga bis bu ci leerut ci boppam ba mu ñàkk maandu te da koy góoxal ba faaw bu ñu nettalee te dana ko nettali te bis bu amee occasion dana la ko wan moo tax yooyu moom mata moo dindi kon nañuy leeral xale yi ci liñ a xam ak yu daw naka lañ koy kii ñun daw nañ koy saafaraalu ci bari day ñëw rek nga ne ko ràtt déedéet mooy yow dangaa yokkaat problème ndax gis nga loolu nga koy def saa boo amaatee occasion day demaat mooy li am solo mooy ren bi renu renu jafe-jafe bi nga war a xam fam nekk nga ne ko cuqeet buddi ko mooy dangay jéem a xam lu ko tax a daw ndax ci daara ji la wala ci sama jëmu ji la wala ci sa nangam wala ki koy jàngal la wala ne bu jaree nga wecc nga soppil ko ko koy jàngaleel bu fekkee na am na ñaari xalaqaat wala ba ñett nga soppil ko jàngalekat essayé xool buñ demee ba ba nga jàngoort ni ci daara ji la nga am beneen jàngalekat bu la wóor ni dal nga xelam ci moom nga yóbbu ko ca daara diw sàngam ak yooyu yëpp dañuy làmbatu rek waaye excès rek ratt rek tëj wala nangam yooyu yëpp réglé woo dara ca ba mu mi ngi ràbb ci xelam saa bu amee occasion ki ca bis bu ko fa ndogal dalee ñu ne da koo jatawoon ba nangam wala da ko tënkoon ba nangam affaire bi dafay gën a taral àtte bi yooyu nañ koy moytu ko kon euh, nañuy jéem a xam sabab yi te sabab yooyu ñu ko bu dee liñ mën a loolu mooy saafara fi gën a wér mais ñab-ñabal lii ñuy def yëpp ay ñab-ñabal la. satisfaire na ñu ko ñu ko ñu ko ñu ah, ah, waaw xam nga loolu xam nga loolu <coughs> da koo da nga koo da dafa da koo dóor. mu ne ko wax dëgg ñu dóor la waaw xam nga mooy ni euh, li may wax ñàkk méngoo méngoo jëf ji ak lëm jur ndax normalement baaxoo wuñoo gis ko wax dëgg ñu ba noppi ñu mettital ko ci ci yoon même barabu àttewukaay yi boo waxee dëgg sabab la ngir ñu woyofal àtte bi ki nga xam ne day wax dëgg enquêteurs yi ñu koy enquête muy muy dimbalante ñoom ngir feeñal dëgg buñ demee ba ci cëppaandaw gi mën nañoo gën a woyofal pen bi ndax dañ naan kii nit ku set la ku bëgg dëgg la nàngam la mais safaan bi moo am fii kii dafa wax dëgg au lieu que nga soññ ko ci neexal ko jéggal ko yoon boobu waaye nga far ko du ma teg ci loolu lay mën a jàpp parce que xale-xale la daf naan kon parce que dafa lënkale diggante duma yi ak lim def da koo lënkale kon ku wax dëgg danañ la dóor kon bàyyi na maa wax dëgg noonu lay xalaate waaw waaw léegi xale yooyu xam nga jàngalekat yi gis nga dañ naan xale kenn du ko natt ci moroom nit kenn du ko natt ci moroom nit ku ne nitu boppam la loolu il faut xam nit ku ne nitu boppam moo tax wolof buy wax ni nit nit ku nekk yatu boppam mooy ne dafa bëgg laa wax ne nit ñi yemuñ léegi yow ka jóge ca daara sàngam ñëw fekk ngay def naa nangam mu jig la baax ci sa daara baax sa digg ak say gone ba nag mu bëgg laa influencer ni leen du nii mooy dalaa bëgg a sa aw yarin ak aw doxin yoo xam ne xëy na jàpp na ni moo gën moom ca daara mu bëgg koo cëppeel fii déedéet demeewul man bu fekkee ne li may def ñu ngi may résultat ci jurul ak noonu sama digg ak damay jàpp ni baax na kenn du ma indil leneen noonu def mais euh, sañ na nag am xalaat ndax moom xalaatam ci yareen xëy na loolu la mais yow am nga ci beneen gisee mooy ne kon ki nga yar bala nga mën a def ci moom faw mu ñeme la jege la ñeme la jege la su ko defee loolu moom ci ngay mën a dugal yeneen yi waaw. mu ne xale yi.

du ñàkk ay benn benn nag yoo xamante ne programme bi du méngoog ñoom bu boobaa buñ ci mënee am saafara mën nañ ko mën nañ ci am saafara euh, bu dee école gis nga dañ naan lañuy am at sàngam di def classe sàngam ñooy bokk lu ñuy jàng ñi am at sàngam ñooy bokk classe bu ñu nekk ñooy bokk lu ñuy jàng noonu lañ koy defee ndax ñi bokk ay at ñooy jege ay xalaatin waaye du tee dana am ay wuute yu sew sewaat yu nekk ci biir yooyu ma ngay feeñ ci ni ngay jàngalee matière ak jumtukaay yi ngay jëfandikoo moo tax ñu naan ne ni ngay jàngalee bul jàngalee ci benn anam nii rek jumtukaay yi ngay jëfandikoo tamit dafa war a xeetoo dafa war a wuute ba xale bu nekk war cee mën a gis boppam di jëfandikoo ay jumtukaay projecteur di wax di junj di nàngam loolu mooy pour nga mën a laal xale bu nekk yooyu dafay faral di su ko defee ne daara ji moom euh, ni muy doxee mënoo kenn ku ne nga tegal ko programme boppam mais danga naan de manière générale daara ji nii lañuy nii la ñuy def fas naa yéene daal bind moom xale buy door a tàmbali bu nekk du weesu nangam bind xale bu egg barab sàngam bu nekk du weesu nangam léeg-léeg nag ci biir group ba yay nekk barab sàngam man nga cee gis koo xam ne day loolu dafay dafay kii ci moom nga bàyyi ko tuuti ànd ak moom mais ànd gi ànd gi nag bul dëkk ci xiiral euh, xiiral bu dul taxaw dafay mujj dafay li ñuy wax irhaq maanaam dafay jot capacité dafay jeex bu jeexee rek mooy ne dafay xale bi dafay dafay daal di koy wax. macha allah yaakaar naa ñëpp am nañ satisfaction ci thème bi am na solo lool eh, eh, question yi itam pardon ci wax question yi itam posé nañ ko waaye itam tontu bi am na eh, satisfaction bu baax a baax macha allah wax dëgg yàlla ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax léegi temps de ñoo ci ñoo ci des. xam naa mu bañ a gudd te gàtt lool sëñ Birane Cissé trois minutes incha allah mu bañ koo passé. Cheikh Ahmad euh, ñu ngi lay ziar baax di bëgg lool ci waxtaan wi am na solo lool xam naa li ma doon noté yëpp sax du ci xaj ndax ni nga ko waxee ak temps bi waaye daal li ma ci gën a jàpp mooy li arab naan aljaahilu aduwu si gis nga ñàkk xam borom danay bëgg a defar. yàq ga ëpp loolu déggee naa ko ci biir waxtaan wi la ma ci gën a jàpp mooy ni mu ci wax ne xale bi nga xam ne dafay tappale buñ ko dëkkal ci noppam tappalekat nga c'est-à-dire am na loo xam ne des koy xam ba ca bàyyi nag ba waxtu wa jot ñu doo ko jox jëm ca loolu seetlu naa ko li ma gën a seetlu ci biir wax ji mooy al insaan huwa al maqsuud doomu aadama mooy ki jublu mooy cible bi moo tax mooy dëppoo li sallallahu ne wa sallam ne xaratul ashyaa kullaha li ajlik comme que lépp dañ la ko bindal te réer mooy noonu boppam jumtukaay booy jëfandikoo war nga koo xam pour man li nga xam ne moom nga ëpp li ngay jëfandikoo ci sa dund sa xam-xam ci la war a gën a yaatu jàpp naa ne loolu bu amee rek jafe-jafe doodul bëreeti euh, bu dee. bu dee yenn yi ci lim junj dafa am yoo xam man damaa jàpp ne ñun sëriñ daara si il faut ñu jël suñu responsabilité ndax leneen tamit junj ko waaye damaa jàpp ne ñun li mu amee lum ñu war comme manque manque ci wàllu xam-xam ci wàllu yu bari noonu la amee manque manque bu rëy ci état ndax ñun akom maanaam état ba léegi tënkagul lu leer ci daara nu muy doxe bi la waxee dëgg projet de loi bi ñu préparé woon pour daara ba léegi mënaguñ ko soo yóbbu ensemble national bi di ko voté ba ainsi de suite aussi moo tax problème majeur bi pour man daara état la ndax li ma amee règle yu maanaam ay projet de yu leer yu tënk njàngam tubaab ak école arabe yi amu ko ci daara loolu problème bu réeréer la su ko defee nag li mu wax ci xel mu nafs li ma ci jàpp mooy sunu mbooloo mi ñu ñëm mu gën koo fulaal ndax kenn ku nekk ci ñun di nga am loo jàngee ci sa morom comme nga ñun formé wuñ ñu ñu ne neen mën nañoo formante loolu seetlu naa ko ci biir ak yeneen yoo xam ne temps bi xaw bi xat mais daal sëñ bi euh, li ma jubloo wax li dama koy wax direct man bëgg naa te yaakaar naa mbooloo mi duñ ko bañ nga ubbil ñu bunt ci nu ñuy def ba nga dimbalante ak ñun ci alamu nafs loolu moom ñu ngi koy ñaan nga xalaat ci mbooloo mi xalaat yi nga xam ne saa bu ñu jógee ñëw pour nga dimbalante si ñun fekk yow nga xalaat ci avant ñuy ñuy dikk incha allah. moom mooy président wu jamaayatu maalimil quraanil kariim fi Koutal Sénégal trois minutes temps lépp. ok salaamaaleykum wa barakaatu. yaaram Cheikh Ahmadou Mbacké ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di la jaajëfal itam di la jaajëfal bu baax a baax ci waxtaan wi kawe na njort lool macha allah waaye li nga xam ne moom lañuy ñuy rek mooy. di ndokkeel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp rawana rawatina ñi nga xam ne ñoo fi jaar ku mel ne Sëñ Xaadim ak euh, waa markas Iqra tamit Cheikh Abdoulaye Ndiaye boo noppee nga jaarale ko ñoom ñi ngi fi teew sëñ maam Serigne Dia moo leen fi teewal kon ñu bàyyi xel ne mboolay jàngalekat yëpp benn la bi ñu tàmbalee mooy lu mel ni euh, taaliqaat yi ñu bàyyi xel ne am na ci yoo xam ne léeg dañ koy dégg mais daf ñuy rëcc waaye dégg nañ léegi euh, sëñ bi wax na ci lu mel ni tappale amul tappale man ci ni ma ko déggee mooy xale boo xam dafa wut lay bëggut jàng mu wut nangam mais damaa gëm ne dafa am am na dafa am ndax dañoo jàng léegi ci ginnaaw ci am na su mu wax ñu ne ñu lépp loo gis day am ci biir mais am na lu koy màndargaa ci kaw donga daaru yàgg yi li nga xam ne euh, moom la ñuy xam ci xale bi li ngi màndargaa ci kaw ci la ñuy sukkandiku wane ne kii li muy wax dëgg la wala du dëgg léeg mun la sama biir day metti mais am na nu mu war a def est ce que loolu mi ngi ci kanam gi waa wala déet nekk naa ci benn daara léeg-léeg xalqa bi da ngay gis ni bis bu set kenn dana feebar mais ba ma fa toogee ñaar feebar man demal jàng ñaar feebar man demal jàngi toog naa fa at gisatuma ko feebar ay mbir la woon yoo xam ne ngir bañoon a jàng la mais am na yooyu sukkandiku ne ne kii jàpp na ne dara jot na ko waaye dara jotu ko wala tamit nga wan ko ne ko kaam fajal la ko sa biir bi nga raay jàng nangam nangam tifli na ko bisimilah léegi mu wér gis ko léegi mu di commencé fooy léeg-léeg ay kii la ci loolu ci laay dikkee ci am na ci yoo xamante ne ay tontu lay doon saatul xudus laaj bi nga laaj léegi loolu lañuy ñuy tudde raay raay ki nga jàpp di ko làbbali di ko làbbali di ko làbbali jox ko xelam li mu àttan day mujj ëpp ci boppam ba xale bi day mujj raay maanaam day day froyé wiis bi nga jàpp di tëj day ëpp ba mujj day froyé maam doo tëje day ëpp maanaam li nga ko jox mu ëpp xale bi mën naa mokkal nisif wala isib wàcc dootu mën a toppaat isib li ko waral mooy dañ koo mëytoon batma waaw xel mi doon na ko tari mais taxutoon mokkal ga nekk fa waaw kay solution bi mooy xale bi mën naa mokkal duma ko topp ci li mën a mokkal lépp du ko topp ci li mën a mokkal lépp waaw ma ngoog léegi li ci ëpp nag mooy ñun danañ mokkal bind di dem waaye duñ mokkal li ñuy weesu li ñuy weesu nag da ngay partager ñaari xaaj li mu weesu lépp xaaj bu njëkk bi na ëpp bu mujj bi bu njëkk bi nekk ay bopp saaram mu di ko jàng par nangam par nangam bi ci topp mu di ko par nàngam bu dee jàng par isib fukki isib yi nga jàng par isib ba yeggal boo dëppee defal isib ak nisib boo dëppaatee defal ñaari isib boo dëppaatee defal ñetti isib wala boo jaaree ñaari yoon yokkal nisif boo ci ñaari yoon yokkal nisif bopp saar bi noonu nafar bi noonu juróomi fan yi fukki isib la fukki isib la juróomi fan yi boo ko defalee isib ci juróomi fan yi ñaari semaine la waaye boo fa jaaraatee dootu man ñaari semaine bu fa jaaraatee ñetteelu yoon ñaari isib lay doon benn semaine mu jeexal fukki isib bi li mu weesu lépp daa war a mokk loolu mooy tax bu ma bu wàccee toppaa ba yomb ka ca topp mooy soxna Mame xale bu juróomi at du ko war a jàng waaw tuuti Cheikh Abdoulaye Ndiaye xale du ko war a jàng juróom benn at ak genn wàll la war a tàmbalee jàng di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ca daara ja juróomi at ku ma ko yët dama naan la mën a gut a jàng mais mën naa ci maslaa ngir di ko téyel muy dem ak a ñëw bu amee juróom-ñaari at ci la war a concentré wu toog di jàng. am na solo lool mu euh, ma juumal sax yaa ngi ko doon waxaat ci sa biir yi wax ne bi ngay wax xale yi nga xam ne léeg-léeg dañuy toog ci bañ a jàng di leen woo bu yàggee rek yow da ngay am signe booy am foofu ci ne xale bi nekkate daa bëgg te jàng maa ngi koy maa ngi koy dégg ci sa biir yi wax buy dawa muy nangam kon ka wax loolu xëy na waxin bi. nañ ko déggee moo xaw a wóote rek mais la chaque ni tappale moom am na ah, wax ji am na solo lool tabaraka rahman maanaam déggee nañ ci ne ah, wax lu dul dëkk wuree su ko jàngal xale bi waa ah, dee su ko wax nag di ko tiim comme ni koy jàngalee alquran di ko jàngalee noonu wax lu dul dëgg waaye am na nooy demee moom noo xam ne dafa mel ni danga koy soññ ci wax lu dul dëkk xale bi léegi-léegi war naa mën a def am ndëngati ñëw wax lu du dëgg nga ni ko baal naa la ngir li nga wax dëgg dana ko gën a soññ bu baax a baax a baax li mu doon wax léegi ne baamu na ko ci bi muy tàmbali ay yoon ñun nit ñi lu fi sotti ñoo ko sottal te bu sottee ba yeggal noo koy jëriñoo huwa ansha'akum min al ardi wastamarakum fiha maanaam dafay am loo xam ne comme ni mu ko waxee yëg-yëg yi xale bi ak mag mi ñoo ko ñoo ci bokk xale lu ndaw ndaw ndaw ndaw boo ko bettoon dóor ko mu gersu maanaam yëg-yëg bi mu am ba gersu am na lu xew ci ginnaawam moo tax mu gersu loolu kon mettit yeeg tartar yeeg mag ak xale ñoo ko yem mer ak loolu itam baax na ko maanaam dama jukki yenn ci yi nga xam ne moo gën a am solo bokk na ci gën a am solo ci mën a jëriñoo ci ci ci waxtaan bi yow mi yar itam balaa ngay jël décision war nga war nga réfléchir xalaat waaw ba pare léeg-léeg xale ñëw ne yaa ngi gis diw sàngam mu def ma nangam bul def ma wa ni la ko waxee bu métti ba tax nga di automatiquement rek nga def nga nga réagir si naa lii dafay wax mu ne bu nit ñëwee gàddu benn bëtam ne la diw sàngam sama benn bët balaa ngay àtte déglul diw sàngam moom ndax mën naa am boo demee ña nga bokk ñaari bëtum ma wax joon bul gaaw a bul gaaw a kii bërki dama toog euh, xale yu bari ñëw fañ toogoon sama soxna mi ngi toog ñu waa kër bari ñu ngi toog mu ñëw rek dal ni yaa ngi gis yaa ngi gis Ahmad Fadal non yaa ngi gis sama benn sama benn tur tànk ne moo toj kii ba seetu sama soxna daal di jóg daal ni ma wax ci boo ndax lu ma teg ma toj ko ma daal di jóg bi ma jógee dem ma fekk ko ci biir ma ni ko ku ko toj mu ma toj ko sama rakk moo ko toj ndekete rakkam bi moo ko toj nga xam ne maanaam réaction yu bari yooyu noonu bu ñu ñëwee boo gaawoon def rek parce que lay mel noonu da nga def penalty rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidil awalin wal axirin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaara ci événement bu mag bi nga xam ne jóge nañ ci di ñaan lépp lu ci suñu borom subhanahu wa taala diggee ñu daje ceeg loola noo ngi leen di balu bu baax te di leen balu di dalalaat it mu fàtti Cheikh Mahmoud Ngom comme ni ko suñu Abdoulaye waxee te di ko jégalu ci toogaay bu yàgg bi ndax ku ne xam na ni waxtu yi ni ko tënkee woon ak ni mu demee xaw naa wute tuuti ñu ngi ko ciy jégalu bu baax ci toogaay bu yàgg bi moom mu fàttis nag ci gàttal e, bu ñu doon tënk ab jaar-jaaram dañuy wax ne mi ngi jànge école primaire ci Ngaye Mexe ngay Mexe fa la jànge école primaire ba am entrant sixième ci atum 1991 foofu ci Ngaye fa la defee it collège fa la jànge ba am BFM ci atum 1995 bi mu amee BFM ci lañ ko lycée ICS bu Mboro lycée ICS bu Mboro foofa la jàngee ba am baccalauréat baccalauréat mention B ci atum 1999 nag ci la dem université Cheikh Anta Diop foofa la àggaleem njàngam ba am fa licence sociologie am fa maîtrise sociologie am fa DEA sociologie nekk jàngale kat nekk inspecteur jamono yi moo nekk inspecteur d'académie bu Mbàkke Bawal mu war ñoo waxtaanal ci diggante droit ak daara mu mel ni loolu thème bu am bu yitteel jàngalekat yi la muy nit ki xam ay sañ-sañam fan la tàmbali ak fan la yem ci xale bi kon ñu ngi koy dalal bu baax di ñaan yàlla mu defal ko tawfiq ñaan ko ànd ak yaakaar ci thème bi nga xam ne fas na ko fas na yéene ko traité eh, ngir ñëpp mën cee jàngate lu kawee njort ñu ngi koy dalal mu fattis bismillah